mboki amateur yi mboki mbër yi production mo len di wo fan lay doon ñu ne len Dakar terrain gal gi le 31 octobre 2021 ah Gardi production mo mo ñew terrain gal gi ak mise 2 millions 500 ah kon lolu dina neex dina yëngu animation ba ñu ne la voix d'or de cœur Farba ak kan le gosse magique de Gandiaye mbayang lum la len di tegal ak Maodo Faye waaw ku bugg a seetaan boo andee deux mille da ngay seetaan trois mille da ngay seetaan ma ne la cinq mille nga taat di toog loos kenn du la déranger waaw waaw le octobre lay doon Dakar terrain gaal gi avec Cardi Production deux millions cinq cent mille la tegal mbëri ndeysaan ñu leen fay woo yéen mbokki amateurs yeeg mbokki mbëri yëpp teel leen ñëw teel a dugg seetaan ambiance seetaan cosaan seetaan bërëb bu neex Cardi Production bu wootee dafay neex